de Chine kon wax yiñ fi dégg fan yi du wax yu bees waye xeyna légui la nit ñëmé génn diko ko assumer waaye wax yu yag la parce que seen objectif mo doon fexé ba Macky Sall euh koko djégé euh du nekk di dégg ak mom parce que bo boo ak mom xeyna euh du yow rek ya euh, yaa koy xélal du ñom rek ñokoy xélal hmm. mais justement euh wax ci fan yi mooy bi nga né génn nga euh, Mansour Faye euh, di euh Magou Marème Faye def euh, interview ak sunu mbokki l'observateur yi ŋàññ li nga dem ci TFM toog fa ne génn nga APR nee na waru la te waroo ko woon def foofu sax faf waroo ko woon waxee foofa du nga doxalee waroo ñu ko woon doxalee moom Mansour Faye ancien ministre itam. waaw moom sax xam nga wolof moom dafa bëri diplomatie waaye moom li mu wax mooy daanaka man traître laa damaa trahir suma grand frère. Euh, normalement waxu Mansour Faye moom waruma ci sax tontu ndax euh, dafay mel ni mbaam muy ŋaax rek nga xam ne euh, yàgg na ko def saa yu génnee làmmiñam saa yu waxee rek nit ñi ne euh, daal di tëj seen nopp yi su waxee wax musiba su waxee wax lu ànd ak reewaange su waxee wax loo xam ne amul richesse maanaam médiocrité ak wax ju superficielle ak wax ju yemewul maanaam loolu la tàmmal Sénégalais yi ba tax na mënon naa bàyyi mu jàll rek waaye nag dafa ma laal parce que su demee bay dugg ci sama relation ak koo xam man ak mom ñoo bokk ndey ak bàyyi moom mu nekk goro rek waroon na am mm, seetantal tuuti wala mu am jom tuuti compte tenu de mom euh, li ko Macky Sall defal defal ko ay ñoñam fukki at ak ñaar teranga bu nekk mu am ko ci nguru Macky Sall te dara waralu ko lu gorom Macky Sall du njàngam du jomam du mun politikam du kaddom gu jak du kaddom gu rafet du mun ligeyam kon nak situation bu melnon bu amoon waron na am retenu baña dug suma digante ak Macky Sall ma fatil ne Macky Sall man dama ko bëgg ngir yalla jaral na ma def sacrifice yu bari ku dem ba ne ngay genn APR waye tay ji Macky Sall bu taxawon nga lat ko koku war nga xamne trahirul Macky Sall waye nak dama japp ne xeyna mom daf ko yomb muy ut benen sant xamna naa bëgg a Mansour Faye Sall man nag yomb ma may changer sante ki ci changer bàyyi waye mom xeyna yomb na ko bu ko nexe mu def ko ba pare tamit euh mako yegal ne walu traître bi ma ko waxee daf ma métti lool ndax eh, traître lu ñaaw la dama dem sax ba tijji livre état civil sumay waju rek sumay mam xol lutax lan mo wara mëna tax rek Mansour fay mëna am sañ-sañ man Aliou Sall mu may tuddee traître xeyna da ko gis ci man wala sumay wajur wala sumay sumay sumay mam waaye bi ma tiddee livre état civil yooyu gisuma ci benn yoon trahison maanaam lu ñuy wax traison wala traîtrise parce que ñaari moo la yu jege waaye yu wutee waaye ñaari yooyu gisuma ko sumay waajur gisuma ko sumay maam dama koy ñaan nag moom it travail d'introspection boobu ma def moom it na ko def xool ci ay waajuram ak ay maamam xëy na daf ci am loolu moo tax ma mu koy tuddee waaye man lu sori traîtrise la lu sori trahison la parce que judduwuma ci loolu yaruwuma ci loolu xamuma loolu. Hmm. Euh, mais euh, ni nga koy euh, tontoo nii ni koy waxee nii sa digg ak Mansour Faye dafa mel ni yéen ñaar kon bi mag yore gi da ngeen doon maslaa rek waaye da ngeen yàgg a safaanoo mel na ni su ma juumul am déet. man loolu sax moo ma jaaxal parce que Mansour Faye sequñu dara ki nga seqalul dara mooy koo xam ne nekku leen xarit waaye nekku leen noonu maanaam sequñu dara. du ñuy fréquenté wu mosul dugg suma kër mosuma dugg këram ma am soxla ci moom moom nag mos na am soxla ci man benn yoon yónnee ma ay xale yu jigéen ne ma dafa bëgg ma dimbale leen ci marché communication ba ma recevoir xale yu jigéen yi boobu maa ngi nekk DG caisse de dépo ca laa leen dàq ne duma leen ko jox ndax coleen gu ñaaw gu ñu sol woon waaye man mosuma am soxla ci Mansour Faye donc mënuma comprendre moom muy am liberté euh, don euh, di ñëw di ma wax ay wax yu ñaaw yooyu donte man am na lu bari lu ma xalaat ci moom. ndax ay acteurs publics lañ euh, mu yor ay charge publique am façon bu mu ko yoree waaye retenu laa amoon ak kerse ci Macky Sall ba tax na yenn yi duma ko tudd mais jaar jaaru Mansour fay ci nguuru Macky Sall bokk na ci li gàkkal Macky Sall d' abord ci arrogance bu mu amee bu feeñee ci écran rek kanam gi mu ngi wane arrogance bu waxee yow xam nga ci dara jàkkaar noog naa yow nga posé ko question na mën a dala yóbbu kaso kon xam nga ne kooku du nitu dara euh, mënoon naa tëb di ko wax Gérer na walu hydraulique Sénégal aujourd'hui c'est la catastrophe surtout ci li nga xamné ne hydraulique rural Sénégal li ñu xamone moy forage communauté yi diko gérer état bi diko financer ak communauté yi les financer ci gestion lañu la jël concession yu bari jox ko ay opérateurs privés yo xam non seulement investiruñ ndox ma qualité ba baxatul ba pare euh, ñu nangu gestion bi jox ko ay man ma yàgg ko dénoncé ci biir. bon après ça aussi hein comité local de gestion yi tamit dafa bëri woon problème. non amon na problème loolu kenn du ko wedde waye li am légui mo c'est la catastrophe ni ko waxé don naa ko jéem dénoncé sax ci biir waye comme ni la ko waxé man APR suma kaddu amu fa woon doole lool. Hmm. moo bu démé banaan ma day wa cercle restreint amna luñu lu warul def loolu la may jàppale man mo suma bokk ci cercle restreint. ah loolu nu démé demee. Macky Sall sa mak fukki at ak ñaar mun na la wax Babacar ñu jakarlo li ma def tête à tête ak Macky Sall ëppul ñetti yoon benn yoon bi fàtte naa lan la waaye ñaari yoon bi attends attends Aliou Sall nga ni fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar Macky Sall bi nga bokkoon ndey ak baay weetu leen ñetti yoon weetu ñu ñetti yoon man maa la wax lii ñoo weet nañ ñetti yoon waaye weesuwu ko li ci des lépp suñu gisee ci mbooloo euh, mbooloo lay doon mbooloo famille wala mbooloo délégation AMS wala mbooloo APR wala leneen xëy na sax yeneen saa yi ma profité ci réunion tas ma kar ko jéem a wax ak. mais loolu tamit. waaye fukki at ak ñaar laa la wax. wéetoo maag Macky Sall këram ñaari yoon laa fa dugg. mais loolu tamit Macky la de. këram euh, këram ñaari yoon laa fa dugg loolu du la dëgg li ma la bëgg a wax mooy bokk ma ci cercle nga koo xam ne doo koy gis mënuloo bokk ci cercle restreint euh, pourtant du bañ ko bëgg de ndax quand man am naa expérience politique maa ngi politique depuis bi ma amee 15 ans euh, yàlla def na 2098 bi may commencé génn ànd jëf Macky Sall doon lu ma déglu bu baax. boobu ñoom ñu bari ñuy wax ni naan damaa trahir suma mag ñu ngi woon ci leneen ñu ngi woon ay Europe di def ay trafic diggante réew ak réew ba di ci am ay problème sax loolu sax seen problème la ñoom waaye maa ngi woon fii liggéey ak njàng moo ma surale Macky waaye comme ñenn ñi Macky mooy seen dundukaay maanaam dañu mel ni sang si ci moom bëgguñu kenn ku koy wax dëgg wala ku koy wax beneen xalaat di ko jege ndax yaakaar nañ ne soo ko waxee dëgg la responsabilité Aliou Sall la responsabilité la responsabilité de Macky Sall aussi. lutax lutax lu doxale ak yow noonu. Babacar Macky Sall bu rayon nit sax suma mag la Macky Sall suma gisul won sax ñaar fukki at ak juróom il va rester Macky Sall suma grand frère. xam nga te momit dafa melni xam nga dafa am ñoo xam bu ñame ñaari jabar benn jabar bi lakal len lool keneen ki lu mu wax rek mu ne waaw ñaari choix la ñu am. soit dañuy maar ci affaire bi jabar ja leen lakkal ñu dagg sëy bi mu dàq ko wala ñuy wut jàmm ba nga xam ne jabar bi leen lakkal lu mu wax rek ñu ne waaw kële nag moom lu ñu mën a jël rek teg ko xam ne du kaas. daf la sacrifier Euh, non ne sacrifice man non je veux dire euh, politiquement euh, dans la gestion des affaires publiques. non veux wax sacrifice. parce que daf daf la gënaleeg gore yi am pas non wax sacrifice wax mais li ma bëgg wax Macky Sall ne dafa jëm ci Aliou Sall wala jëm ci yenn mbokk deret da doon préféré ci parce que je xam na que vous la fay am. vous fi nak mu xalaat am jàmm moo tax ñoom lu bëgg rek mu ko ko ci problème parce que bu ñu demee sax ba doon hésité ay troisième mandat c'est parce que ñoom loolu moo doon seen intérêt maanaam reste ci nguur gi. waa Faye ak Mansour ak ay ñoñam laa mën a wax. Hmm. parce que xam nga man nag ku ma tooñul du la bëgg a tooñ. man Mansour Faye moom ma tooñ moom lay tontu waaye comme moom moo wax waxu cercle restreint Mansour fay ak cercle restreint ba muy wax laa wax ne. ñoo dugal Macky ñoo dugal Macky d' abord ci hésitation troisième mandat parce que loolu mooy li am ñun ñëpp ay observateur mosoo ànd ci troisième mandat mosuma cee ànd donte amoon naa discipline politique yenn saa yi bu ñu waxee rek ma wax waaye ñoom ñëpp xam nañ ko parce que xam nga boo nekkee président wala jege président di nga am information moi j'ai combattu le troisième mandat parce que dama yaakaaroon ne baaxul ci Macky Sall euh, pourquoi parce que euh, APR ni mu bindoo mun mënuñu woon euh, gàddu xeexu troisième mandat c'est pas parce que amu ci woon droit mais mun mënuñu woon gàddu xeexu troisième mandat doon nañu dugal ci musiba yoo xam ne baaxul ci Macky Sall baaxul ci man wàllu rapport tamit bi ñu demee ba échoué ci troisième mandat am lu leen naqare lool man xam naa ne bokk naa ci ñu mere lool parce que ne bokk naa ci ñi ko sooke euh, ñu jéem troisième mandat jàllul ñu bëgg a def ay rapport élection yokk un an deux man dama ci opposé wu farouchement euh, xam naa loolu tamit sa sa sa mag la soxal de moo ne non waaw waaye xam nga euh, un président de la république responsable il prend des décisions en fonction des des informations yu muy am ak appréciation ak ñi ngay waxal yàlla nag def na période boobu doonul woon wax ni mu waree wax ak ñi ko jege loolu mooy la vérité aussi. Hmm. man y compris yaa ngi tudd Mansour Faye yaa ngi koy tontu waaye ñun xabaar yi leen am mooy itam euh, sa digg ak Mariam Faye neexul euh, est-ce que moom it koy boole ci ñi nga xam ni da nga jàpp ni. dañ la doon xeex féewalee la ak. non vraiment du ma ko ci boole. Euh, xam nga nit mën ngeen bañ a juboo ku nekk jàpp njaamuram boo koy wax lu ñaaw sax wax ko ci secret loolu amul problème man loolu duma ci tontu wax dëgg yàlla soxna la ci sama mag donc war ma boobu man moom lay garde donc duma ko tudd duma ko taas du ma ko xas xanaa mu yeewu donte nag euh, am naa yu ma war a mën a wax. waaye bu yeew woon tey ji wax ma dara kon danaa ko wax lu mel ni xeme waaye waxu ko nag ba ma dégg ko donc loolu tamit man damay am retenu bañ koo tontu ci loolu dama koy jël rek comme suma soxnaay mag donte comme ni nga wax nekkul suma xarit euh, waaye loolu moom du tere adduna bi continuer. mais qu'est-ce qui s'est passé parce que yow. loolu mbiru du ma ci wax. oui oui d'accord mais aussi c'est la famille. non Mansour Faye bokkuma alliance Mansour Faye bokkuma ak moom dara. fay la sant ma sant Sall su bëggee sant Sall nag na dem négocier ko Macky man xataluma ko fa donc vraiment bokkuma ak moom dara. mais da nga meloon ni ku bëgg ku bëgg euh, normaliser sa relation ak Marème Faye. tuddee nga ko sax doom. waaw loolu Marème Faye déggoo li ma la wax lu tax seen problème euh, réglé wul. déggoo li ma la wax ma ne la mbirum Marème Faye du ma ci wax parce que jabar soxna la soxna sama grand frère la du ma ci wax tey jii du ma ci wax lu baax du ma ci wax lu bon. Hmm. waaw est-ce que sa mag président Macky Sall. da doon déglu lool lool lool Marème fay am déet. ci la daan doxalee réew mi loolu la yow yaa ko wax man. damay naan du ma ci commande wax dëgg yàlla du ma ci commandé. Mhm. Euh, Sall ni mu doxalee ci élection yi tabb candidat xeex ko bëgg report élection ñu yokkal ko mandaam deux wala trois ans ba yi fi mujjee ni mu mujjee euh, coalition Diomaye président duma seen candidat duma yu yu yu metti nan ngay jàngate en tant que acteur ca jamono jooja. Eh, lo bokk ak bokk ak Macky Sall APR nga bokkoon itam eh, eh, soutenir candidat Amadou Ba mom Macky Sall soutenir ko ni ko waroon soutenir lan mo tax ci sa gis-gis Macky doxale non xam nga deg nga mo man ma wax parce que journaliste nga mbir yoy bu mu amé ñepp deg nañ man ni ma jappalé Amadou Ba dama ko jappalé d'abord parce que dama gëm né ñun ñi Macky Sall Amadou Ba mo ci gënon placé pour mëna engranger des voix yaakar gagner élection lolu mooy première chose bi la deuxième chose mooy mënuma comprendre ñu tànn candidat dem ba ci biir di ko nasaxal surtout que en face de ñun xamoon nañ ni Amadou Ba bu gañewul opposition radicale bi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak ñun di ñu yekk xeme di provoquer ay trouble ci réew mi ñoom ñoo waroon a gañe mënuma comprendre loolu te wax naa ko à l'époque euh, loolu bu weesoon nag bi ñu demee ba réew mi jaxasoo quand même complètement wax report ñii di wax ay warku coup ñii di wax ay émeute ak lu nekk boobu nak man vraiment jël na sumay responsabilité ñaan Macky Sall na def li nga xamne lool moy intérêt te xalaat réew mi baxna waye bo démé ba sa mandat jeex xalaat sa bop tamit xalaat sa njabot baxna et de ce point de vue amna yu bari yu mu def yo xamne man man euh, deug la anduma ci en tant que démocrate mais dama koy comprendre parce que euh, à un certain moment sa responsabilité première mo doon fexé réew mi am jàmm. donc dialogue loi d'amnistie génne leen man loolu ànd naa ci euh, parce que boo amee recul da ngay xam ne il était par le fet que bu fiy jógee quand mu bàyyi réew mi ci jàmm loolu vraiment lu ma rafetlu la donte ni ñu doxalee ak Amadou Ba loolu nag du secret parce que ay mbir moom bu ñu demee ba wax ko ci ay secrétariat national dajeek ay nit. wax leen ko donte man Macky Sall mosuma woo ne ma bul jàppale Amadou Ba loolu moom mosul am xëy na nag dafa xalaat ne man dëgër naa bopp dëgër bopp goo xamante ni comme xas naa ba jël benn yoon du yàq énergie am ci di ma di ma wax lu mel noonu waaye nag man démarche boobu jaaxaloon na ma trop. mbir nag ci wàllu politique balaa nga koy mën a juger dëgg nga am recul ay weer wala ay at. donc am information yëpp mën ko juger donc c'est trop mënuma tey jii def ben jugement péremptoire bo xam day condamner wala approuver totalement mais lima xam moy succession de faits yo xamné inexorablement daf ñu doon amener vers la défaite et c'est ça qui s'est passé. Mhm. Euh, mais euh, lutax maki defee non il faut que ñu taxaw ci lolu lutax tax mu defee noonu tànn nit ba nopi jàppale woko bëgg bëgg sax mu am défaite ça quand même. Euh, c'est surréaliste. waaw man loo loolu loolu lay wax man du ma ci guddal parce que d'abord, comme je t'ai dit man Macky Sall woowu personnellement ne ma maa jàppale woon Amadou Ba léegi jàppale ma ko donte ay nit ne nee nañu ma Macky Sall woo na leen ne leen maa doon jàppale Amadou léegi bu leen ko jàppale waaye ay nit a ma ko wax donc mënu ma ci waat euh, ñaareel bi mooy man xawma lu xew diggante Macky Sall ak Amadou Ba awuma occasion laaj ko Macky Sall waaye Amadou Ba laaj naa ko bi veille élection yi ma ne ko man j'ai un problème parce que mënuma ànd ak yow fekk y a un problème avec Macky Sall dama bëgg xam mais il m'a dit mais Aliou man yëguma ben problème donc man ci base yooyu principe yooyu la jàpp dem à fond avec Amadou dont à un certain moment xamoon naa ne on va vers la défaite mais boo nekkee ci ben choix da nga dem mais le ëpp solo mooy lii ñëw suñu kanam. mais mais franchement franchement euh, Aliou Sall neexul a gëm Macky Sall donne sa mag